dañuy bég ci daje bi ñu daje parce que daje bi bu ngeen fàttalikoo at bi ñu génn euh, dañu boole woon euh, meeru fukki dëkk ak juróom ci Sénégal wax leen euh, xibaar bi nga xam ne UNICEDA moom la indi loon mooy que ni maire àddina bi yëpp dañu daje Paris signé benn këyit ne ci këyit boobu ñoom dañu ci engagé wu jàppale ñiy xeex feebaru sida donc bi ko meeru àddina bi yëpp euh, defee le meeru Sénégal également yu fukki dëkk parce que dañu commencé ak euh, fukki dëkk ak juróom parce que mënuñu commencé ak ñëpp ñëw Dakar euh, ci njiitalu premier ministre ak associ président association des maires Alioune Sall ñu ñëw signé ñoom ñëpp déclaration d' engagement. ñun nag ñu ne ñun xam nga ñun ay technicien lañu dañu ne déclaration baax na parce que mooy engagement politique mais déclaration il faut que ñu traduire ko en action il faut que ñu def ko ay jëf yu leer ñu ñi gis ko loolu moo tax ñun maire yi nga xam ne dañu def déclaration bi ñu ne dañ leen di dajale ci ay atelier wax leen fan la ñu mën a jaar ba jàppale ñu fa ñu mën a jaar bare na mun nañu jàppale association de quartier yi mën nañ jàppale jeunes yi ci quartier yi à travers euh, ay ay euh, Euh, activité de sensibilisation yoo xam ne mën nañ ko financer mais également euh, traitement wu sida c'est vrai antirétroviraux yi état daf koy jënd mais am na lu des nit xëy na doo am loo jënde sa yeneen ordonnance xëy na am na ñoo xam ne am amuñu paas am na ñoo xam ne amuñu lu ñu jënde ticket modérateur wala bu ñu la hospitalisé amoo loo fayal fay hospitalisation wala loo fayal sa doom ñu ne maire yi li gën mooy ngeen jàppale PVVIH yi ñu dugg ci mutuelle de santé yi dans le cadre de la CMU bu ko defee ku ci feebar Euh, mutuelle de santé bi moom mooy jël en charge sa ay sa ay frais mu nekk loo xam ne dafa am solo du lu bare ak tuuti xaalis mairie yi mun nañ def lu bëree bëri donc tey euh, loolu la ñu nekk ñun euh, indil ko maire yi waxtaan ak ñoom ñuy rafetlu nag teewaayu maire yi gis ngeen ni la maire Wilane ñëw na fi maire yi commencé nañu liggéey bu baax ci xeex bi moom déjà inscrire na lu tolloog ñaar fukki ñaar lu tolloog téeméeri nit foofu Kaffrine ci ci mutuelle yi. maire Talla Sylla également daaw bi ñu demee seeti ko génne na lu tolloog un million jox ko personne vivant avec le VIH yi euh, le maire de Guédiawaye dafay euh, financer chaque année l'association des femmes vivant avec le VIH donc maire yi yu bare maire Ndar dégg ngeen ko moom tamit euh, festival de jazz à chaque fois mu am mu organiser dépistage donc léegi maire yi ñoom ci boppam xam nañu sensibiliser sensible nañ ci feebaru sida mais donc ñun ñoo leen war a accompagner parce que ñun la suñu rôle ñu wax leen fan la ñuy jaar pour que li ñuy def gën a feeñ li ñuy def gën a am njëriñ pour askan bi. merci. may tàmbali rafetlu euh, teewaay bi nga xamante ne am na ci meeru Kaffrine meeru Kaolack bu Saint-Louis euh, bu Fatick. ak waa Thiès ànd ak euh, suñu jigéen Safiatou Thiam mi nga xam ne mooy secrétaire exécutif bu CNLS ñu ànd ak euh, ki nga xam ne mooy directeur pays bu ONUSIDA ñëw fi teew fi ak acteurs yi nga xam ne yëpp ñoom ñooy yëngatu ci euh, wàllu xeex feebar boobu ñuy tuddee VIH di seet rek ay yoon ndax daaw dañu dajale woon ci Sénégal fukki maire ak juróom yoo xam ne dañu xaatimoon euh, loo xam ne dafa ñu doon wane suñu dogu ci xeex feebar boobu ñu defe ko woon ci dakaar euh, mu mel ne nag léegi dañoo war a jëm ci jëfe ko lanu dogu woon euh, ñu waxtaan nag tey ma leen di njëkk xamal ni li nga xam ne depuis daaw ba léegi ñu ngi ma koy ñaan léegi ñoom nangul naa leen ko mooy doon ambassadeur képp koo xamante ni dafay dund dégg nga ak doomu jàngoro bu ñuy wax feebaru sida donc léegi c'est excellence monsieur si maire hmm. dégg nga alors euh, dañu bëgg lépp lu ñuy def ñu jiital ci d'abord xalaat ak dogu bu mat sëkk ci ne dañoo bëgg feebar bi jeex ci suñu ngir loolu dañu war fu ñu mënti tool di jiital doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñooy dund ak doomu jàmm mu mel ne wërta yem rek ci ay wax dañu war a seet naka la ñuy fexe ba ci gox yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee euh, ay maire ñu lëkkaloo joxante loxo fexe ba seet tëralin yi nga xam ne moo am ci biir Sénégal mooy li ñu tuddee stratégie nationale bi ñun ñu dugg ci biir maintenant seet naka lañuy ñuy fexee ba pexe yi ñu tëral foofu yëbb ci lépp loo xamante ni dafay am ci gox-goxaan yi pour mu gën a yaatu ah ba ca topp nag mooy xam nañ ni néew doole biy jóge ci ñàkk li ko mën a xeex mooy am koom-koom ay jumtukaayu koom-koom ñu war a fexe nag ba yokk suñu ay jumtukaayu koom-koom yaatal pexe yi yaatal lépp loo xamante ne mën nañu may ñu am ndam ci biir xeex boobu nga xamante ni ñun dañ ko war euh, mu mel ne fii ci biir cees ñi fi daje tey te du yem ci fii puisque ñeneen ña ko signé woon ñëpp dana am yeneen jataay yu leen dajale dafay baax ñu defar benn réseau di jokkoo di diisoo di seet nag ñu ñuy waxtaanee ak ñiy yëngatu ci wàllu wér ak wérle ngir di gën a yaatal xam-xam yi pexe yi ñu war a mën a may ñu am ndam ci kaw la ndax objectif bi du rek wàññi objectif bi mooy xeex ba mu deñ carrément nga xam ne am na stratégie boo xamante ni dañ ko tuddee euh, ñetti juróom-ñeent fukk ñu war a fexe ba stratégie boobu lépp lu ñu mën ci lawal ko ñu war ko def comme mbir mi yemul tey nag euh, dafa am ay waxtaan yoo xam ne ci atelier bi euh, nga xam dañu war a stratégie de riposte yi ñu leen war a accélérer fii suba nag xalaat yi dina gën a yaatu bu nit ñi paree nag xalaat yooyu cay génne dina fekk juróom-ñaari point yi nga xam ne tënkoon nañ leen nit ñi am luñ ci yokk ndax am na waa Kaffrine déjà ñi ngi proposé ñu def la déclaration de Thiès moo tax liy gën a jar a siiwal mu doon déclaration boobu nga xam ne moom la ñëpp waxtaanee ba juboo ko déggoo ko en tout cas la ville de Thiès engagé wu na d'ores et déjà lépp lu ñuy def ñu dugal suñu loxo bi nga xamante ni jot nañu fonds de dotation wu ren muy 99 millions fukki million yi ak juróom dañ ko jëmale ci couverture maladie universelle bëgg jàppale nit ñi nga xamante ni xëy na amuñu moyen pour mën a dem ci mutuelle yi nga xam ne mën nañ leen dimbale ci ñuy war a mën a yëngu ci yenn yi lu bokkul déjà ak li nga xam ne ñun déjà dañ ci mas a engagé wu mooy fexe ba lépp lu jëm ci loolu ñu ñu ci.